Balla Gaye numéro 2 di doomu Double Less di raq ci Sa Thiès ñu ñuy xamal ni jamono ji ñuy wax ak yéen dafa feebar feebar gu metti ba mi ngi entré fële ca hôpital mu di nouvelle bu naqadi bu daanu ci axlu làmb waaye ñu ñuy xamal ni doomu géejawaay bi di ex roi des arènes kenn xamagul ba tey ban feebar moo ko daaneel li ni mel nag di nouvelle boo xam ni jamono jii ñu toll dafa daal di naqadi képp koo xamante ni fans Balla Gaye 2 nga moom Balla Gaye numéro 2 nag jàpp leen ni actuellement dafa feebar ba daal di sonn lool ñu koy ñaanal tan ba mu mën a delluwaat ci ay activité am mbokk yi continuer leen di abonné ak bàyyi xel seen chaîne bi di 7actu l' en temps réel